tey li ñu fi dajale mooy dañuy lancer produit bu bees bu tudd WinFoot WinFoot dafa nekk euh, loo xam ne ci gaamu paris sportif yi la bokk notamment ci football bi euh, ñu inspiré wu ci ci loto sportif bi nga xam ne euh, LONASE defoon na ko fi ay at mu amoon succès WinFoot bi nag li mu indi lu bees. mooy que dafay proposer parieurs yi deux possibilités si trente matchs parieur bi mun na tànn sept matchs maanaam sept matchs juróom-ñaari match mën na tànn tamit euh, fukki match ak juróom si trent matchs yi muy win sept ak win quinze beneen bi mooy comme li ngeen ko xamee si pari sportif bi euh, parieur bi am na possibilité choisir victoire à domicile nul wala victoire à l'extérieur sportif yi xam nañ li may wax donc mooy 1 n boobu tamit moo ko bokk ak euh, paris sportif yi ñoo ko xamoon yépp mais li ci bees mooy win 7 ak win 15 ni mise bi tamit 200 francs la maanaam ñeent fukk dërëm moom la parieur bi di euh, débourser donc soo pour revenir maintenant à une question différence bi entre Winfoot bi ak Parifoot mooy Parifoot bi ngeen xamoon bi ñu yàgg di def bi ñuy def ba léegi pari à la cote la euh, maanaam ki koy jënd xam na su gañee ñaata la war a gañee parce que cote bi dañ ko fixé dañoo wax un et demi ainsi de suite donc su misé xam na ne su ma gañee li damay jël sama mise bi multiplier ko par la cote xam na ko déjà Winfoot nag amul nekkul à la cote donc WinFoot c'est un jeu mutualisé maanaam ñëpp ay jënd ñi gagné li ñëpp jënd la ñuy disons partagé wu mise am bi maanaam dañuy calculer gain bi si li ñëpp gagné ak importance su match bi maanaam les enjeux donc différence boobu je crois xaw xam loterie xam nga ne différence bu rëy la te ñaari paris yooyu mënuñu leen euh, mënuñu leen jaawale donc li ma bëggoon jeexale mooy. Winfoot bii nga xam ne euh, ñu nga ci sant suñu partenaire notamment monsieur euh, Préra nga xam ne moo leen fi représenté ak ay équipe am euh, dafa nekk dans le cadre de notre politique de diversification maanaam LONASE comme société nationale la nga xam ne liggéeyam mooy jëmal kanam économie réew mi mais également di jàppale parieurs yi dafa nekk dans une politique de diversification maanaam euh, créer ay produits yu bees proposer parieurs yi ay produits yu bees pour gën di yokk seen gain yi donc WinFoot bi dafa bokk ci action yooyu pour diversifier diversifier suñu gamme de produit yi cette fois-ci sur le pari sportif mais ñu ngi wax parieurs yi tamit ne fii ak année bi di jeex ñu ngi leen di euh, dig ne dinañ def ay yeneen produits yu bees pour gën di yokk seen chance su ngañaay comme ni ko euh, publicité bi di di di wax beneen bi mooy euh, jeu virtuel lii ñuy def nii pour le moment c'est physique maanaam da ngay dem ci kiosque bi jënd ak sa mise mais xam ngeen ne ci yeneen produit Lonase dugg na ci virtuel depuis assez longtemps te produit bi tamit ci logique boobu lañ nekk maanaam fii ak ay semaine wala fii ak ay weer su neexee yàlla dinañ àgg ci proposer des jeux digitaux avec le WinFoot loolu tamit bëgg nañu ñëpp jot ci information boobu notamment parieurs yi donc di jeexal di remercier encore une fois ñëpp di wax ne mise au jeu bi 200 francs rek la donc euh, te yomb na jouer normalement euh, dafa war a attirer euh, joueurs yi te ñu ngi leen di voilà donc également y la possibilité de cagnotte comme ni ma koy fàttali donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di compter encore sur la presse pour relayer les informations di sant ñi fi nekkoon yëpp di sant suñu partenaire merci boobu